<laughs> ñu ñaar fi mu toll nii. yàlla jërëjëf doy na waar mais comme comme daal yow tu mets dans le même sac euh, Macky Sall et Khali euh, et euh, Amadou Ba. vraiment carrière politique vraiment c'est vraiment nañu nañu bàyyi di jël opposition bi otage. waaw ils ont pris l'opposition sénégalaise en otage quoi franchement. voilà ñun daal xam naa daal xale yi daal ñoo war a taxaw léegi ci réew mi waaw loolu la alternance générationnelle moom sonné na si na waaw très bien euh, aussi ñu de ñu jeexalee ci mhm. par exemple euh, Macky euh, Ousmane Sonko gaa yi nee nañ na dem ci perchoir bi assemblée mhm. ñu ne noonu na toog <laughs> premier ministre ñu jàpp ne bu toogee premier ministre seen dualité dafay feeñ yow lan nga yaakaar ne tey ji Ousmane Sonko foofu la war a taxawee boo nekkee assemblée nationale doo euh, réalité administration bi dootoo ko gérer. Mhm. en politique tout ce qui se fait en ton absence. se mhm. fait contre toi. Mhm. bu demee assemblée. xëy na mën na bañ a xam li xew ci gouvernement bi. te fii suñu réew yi tout se passe là-bas. <laughs> ci gouvernement bi. donc je crois que moom. Euh, mu nekk premier ministre moo gën a arrangé politiquement. bon léegi nag ñaari kuy duñ bokk mbal ko tam. bu fekkee tey rek justement. xam ne Diomaye mooy Sonko. léegi ni ma gisee nii Diomaye Sonko il pèse moins. de 2 millions de voix. parce que transhumance yi moom moo le pays s'endègue bruit de rumeur. relié à une. Euh, éventuelle dualité au sommet de l'État. vrai ou faux nous ne sommes pas en mesure de confirmer ou d'infirmer. mais suivant un peu de déterminisme des faits politiques. ñaari kuy duñ bokk mbalka. justement. waaw euh, kon ñu dem assemblée gën. Idrissa Seck gis nañ ko xam nga Idrissa Seck. pour la gis gis nga Mamadou Dia euh, Senghor. xam nga Idrissa Seck pour la petite histoire. xam nga de mhm. mhm. gis nga Jean Collin Abdou Diouf. foofu laa jëm. ci mhm. temps Idrissa Seck Abdoulaye Wade. dëgg la euh, centre de diffusion pouvoir bi palais bi la. Ah, na. moo tax Idrissa Seck dem installé fa comme ministre d' état. bàyyi ma ñëw comme ministre nga ci suñu histoire. le numéro deux de l' exécutif. Ah. parfois le premier ministre. Ah. ou le numéro deux de la présidence. waaw koy Jean Collin. Jean Collin numéro 2 présidence. Ah, na mooy numéro 2 exécutif bi. waaw kay Ousmane Tanor Dieng numéro 2 présidence. Mhm. mooy numéro 2 exécutif bi. ah voilà mi ngi noonu Idrissa Seck numéro 2 présidence. dëgg la mooy numéro 2 exécutif bi. dëgg la comme yenn saa yi premier ministre moo koy doon. dëgg la wala diggante Senghor ak kii quoi Abdou Diouf. waaw léegi fii tamit. Mhm. xam nga bul fàtte ñoom na nañu. Mhm. biñu doga doog a dañuy renforcer les pouvoirs de les les pouvoirs de premier ministre. di bon man sax jaxal na ma le premier ministre a-t-il un pouvoir. wa mais mo taxon bu. man bi constitution bi. wa biñu defé defee loolu sax dama jaaxal mais mais apparemment parce que bon pouvoir. pouvoir ça renvoie à ce qui est institutionnel quoi. absolument xam nga légui mo tax mo buñu utiliser mu jaxal ma. ba légui dal xam nga fi lu ma gis. ragal na ragal na man indi si may yor nii. waaw dina xam de. ah. waaw ragal naa ko. jaaf maanaam ci naka. non ni ma gisee nii ah ab premier ministre bu taxaw naan sant naa ministre de la justice ak intérieur. waaw di ko wax ci biti. ah. naan bay bay wax li muy wax ah, président de la République. Ah, ah ah de. dafay mel ni canal de communication bi doxatul. dox waaw waaw.

dafay poste boo xam ne dafa ñag boppam constitutionnellement ku ko doonul rek doonoo ko li Diomaye Faye yor nii tey mais président de la République yëg ñoo xam ne kenn du ko yëg xamoo loolu l'homme lu ngeen nekk nekk xarit waaw waaw loolu nekk nekk chef am ah. ci politique ah. am na xibaar yoo xam ne moom rek koy am waaw am na décision yoo xam ne Diomaye Faye rek moo ko mën a jël mm-hmm. léegi nag yow boo bëggee marché sur ses plates-bandes poste bi ngay xulloog bu mm-hmm. Diomaye ngay xulloog poste bi ngay xulloog dëgg la la moo tax mboq. wallaahi buur du mboq de. président de la république. ndax lay nekk ci bopp buur yow xamoo ko sax. li nekk ci bopp buur. Hmm. Ah, loolu Tanor Dieng moo ko doon wax parlant de Abdou Diouf mu ne on ne peut pas savoir ce qui mm-hmm. se la tête de chef d'État. dëgg la parce que information yi du yoon mu la koy wax yenn saa yi. président ne parle pas comme Diomaye.